asalaamaaleykum mbokk mi yaa ngi ci seen biir site empire du mouridisme ñu ngi lay ñaan nga daal di bës ci bouton abonné bi bu loolu jàllee nga daal di bës li nga xam ne mooy cloche bi ngir dootoo tardé ci sunu benn publication jërëjëf. dafa dafa yéeme. ni mu demee dafa yéeme. ndax fekk ñi mu fekk fii ci Ndara si. maa ngi doon tiisu lool bëggoon def jàppoon ne fekk ngeen fekk ma fee. moo moo moo moo moo muy moo muy gënal moo muy gënal. ci ci fekk bi. وعادني لك في بوم قبل بأمانك تي ميد وخاص جي خاص جي دفع أم ودقل تبو دوار ندخ في برب بي خمناني فما فبدا دون بتبير مبار ملا نك ما تدفو sëriñ bi mel ne lu mel ne moom ma nga xam ne maa nekk ci ma aw sàkkin nii. Mhm. Eh, nga xam ne da ngay da jaar ne. Mhm. ba ci bunt bi nga ñëw. Mhm. dañ ma gis sëriñ bi jaar ne. ba ci bunt bi. mu ñëw jox ma jox jox ma ndox ma. ma ma ne groupe sukk. كنا على الخشوع الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وعي ثم خير نير لما يفعل خلانهم مغنم ثم خير نير دي مغنم مبان لهم مدني مغنم مرتي لهم مخالف فيها مجال في في بربي في بربي بربي بربي في في هو اللي ما يفوتون جنب جنب العمار في في ما يكون جنب العمار xam nga wallaahi am ay Mbàkke ndokkee noonu rek xam nga loolu ma te fekk nii mi ngi ma diisoon ma nga ndax ndax damaa dama dama damaa ñëw rek ak coono bi coono bi doy waa ak coono bi doy waa ma ne ma noonu laa daa def sax ma ne dal si ba ay fan door a dem ndax damay ñoŋal kër ga ginnaaw su nekk sukkuri sëñ bi la dama koy ñoŋal bañ mbooloo mi di moo tax ma damay nekk ba mu jege ma door faa dem ñu dem ma fa loolu na ci laa nekkoon dama moo tax ma ñëwoon fii ba eh, bi ngeen bi ma sañam saa ñëw sax jàpp moom nii la ah, xam ne ñëwee nii ma ma ma ma xa ma tàngaay wax ma ma fee fee gën. loolu ci sama xel ni waaye waaye waaye ma gannaaw bi ma xoolaat seetlu loolu ndekete nga xam jox ko wallaahi moo ma ñëw moo jaar ne ñëw dugg ci bunt bi. Mbacke damaa bëgg jox gii ma jox loxo ma joxe laa joxe laa leen ko murid yëpp murid yëpp rek. murid yëpp moom moom lii moom lii moom moom ndax moom sama xel nekkuloon ci loolu. waaye nag bi ni ni jotaay bi demee. Euh, ma bëggoon mu gën a yaatu mu nekkoon mu fekkee mu tiis ma ci ma xol tuuti baaf sëñ bi wax xaas ji sama xel door a dem ci loolu ma xam ne xaas ji moom kon loolu kon loolu kon ndekete moom moom mu ngoog noonu rek la daal la demee jaafe la jox ma loxo mën a juróom fukk jox ko ñaari loxo di su jiw ci loxo bi di wax alhamdulilah alhamdulilah waaye sama xel ne yar na ci mbaxana mi may fanaan noonu ma ma jëndi mbaxana mi moo ci loxoom dem ma xool ko mu jaar yoonam fii fii ci barab bii barab bii ndax lii moom yéem doy na waar yéem na waaye nag ñoom day ab tàmbali rek la ab tàmbali rek la ah, moom de waaw moom de doy na waar moom de moom de doy na waar ah, man de dama xam sama ni ma xeeboo ah. koy mbàkke dañ koy mbàkke dimbali leen rek dimbali rek ba yéene ji ñu am ndax ci liggéeyal sëñ Tuubaa sa jëm ji ci ci waxtu wii la sëñ bi dénkee yoon bi nga war ko ci liggéeyal te ñëpp am yéene ànd kook yow ñoom bu leen ci kenn man kenn kenn du leen ci yàlla nga tasee ngërëmul sëñ kenn du leen ci kenn du leen ci kenn du man ma waaw waaw ne ñoo ñoo ci jiitu ndax liggéey bi liggéey bi liggéey bi rek la liggéey boobu lu ñuy lu ñuy bëgg a la bi mi ngi fi mosulee jóg te yéen a ngi woon ci liggéey bi kon kon kon kon kay moom dañ leen a fekk ci liggéey bi liggéey bii dañ leen a fekk ci liggéey benn liggéey bi rek la te mosu leen ci jóg kon kay liggéey bi moom lu yees ñëpp lu dëgmal dong la bëgg nga demal sëñ koy dund bëgg nga demee sañ yombal dañ koy dund nii ngeen ko defee dund gi rek dund gi rek waaw dund gi rek wala xasida moo moo moo mooy mooy dundal وجاء